di di di di taaba taaba Euh, suñu borom dina sotti lépp. waaw <laughs> gerte gi. waaw gerte gi ñor na xam naa ne ci lu yàggatul incha allah di nga di nga mbuum di nga. yow kese moom bu dee yow <laughs> di nga déggee yow kese moom dama koy dégg rek. naa ne dina ñëw nag dina ñëw yàggatul. Ah, yàggatul de yaa gerte yaa nga ma gis ren moom di nga ci am lu bari hmm. bari moom dégg moom incha allah. mais dégg dégg rek laa si am ko am na solo euh, di jaajëfal waa Saloum gerte neexee na Saloum. waaw waaw parce que aussi am na am na am na lu fi am na lu fi dikk. waaw yokkute la. yokkute la waaw wax dëgg yàlla Aliou Dramé gis nañu yóbbanteem. ah Aliou ñu ngi koy jaajëfal bu baax Dramé moom moo nekk fële ca Ngand. Ngand waaw. gis nañu démb gerte gi. Ah, macha allah am na solo. Ah, ah, waaw wax dëgg yàlla gerte gu am solo daal daf indi. tabaarkalla yaa ngi yi démb moom ci lañ naan ataaya. waaw naan ataaya man biig ma. Hmm? ma cere ci. cere cere <laughs> waaw cere baas. waaw cere waaw neex na de wax dëgg yàlla. xati na loolu waaye. Hmm? <laughs> en ñu ngi koy jaajëfal di sant aussi di gërëm baax baax Mamour Diané bi ko indi. waaw moom moo ngi dëkkee fële ci kër Ndianko Dramé. Hmm. kër Ndianko Diané. Hmm. ñoom yëg beeg cër bi rek euh, doyoon na sëkk. ak ñaan yi xam nga damay faral di wax ne teraanga du tuuti. même bu fekkente ne sax ni day jaay socc. wax la ci la mooy socc. yàlla moom maa la ko baax. <laughs> mais kooku lu rëy la si yow. nit ku nekk la nga am. ki nga mën a duggee marché. Ah, am naa ko ci ci yàggul benn góor. du ma taseel fii ci bunt bi. waaw mu jox ma ay socc. nee na ci lii laa yëngu. <laughs> mënoo ci dara naaxu socc la may jox. mënoo ci dara ma xam ne kii tabarfakala bëgg na ba ñuy weextaal mu dëgër donc ca la mu am. ca la ma cëralee nit ku nekk laal te mu bari lool ci man. nit ku nekk daal ci la mu am. Mhm. day duggee marché. allahu akbar waaw. Mhm. kon bu fekkente ne wax dëgg yàlla seen tool yi ñor na. waaw. ñu yéene si Ablaye bokk yéene si Seydina Omar ba tax ñu indi si lu bari. Mm-hmm. jox eh, jox ko moom Aliou Dramé jox ko Mamour Dianam indi ko fii ci kër gi mm-hmm. démb daanaka ci lañ naan ataaya. waaw rafet na kër gi yëpp kontaan nañu. sant <laughs> waaw am na solo. jërëjëf am na solo Seydina naka yi tey. di sant Ablaye. Eh, actualité bi tey moom euh, xaw naa daanaka yolom. Mhm. ndax euh, politique la moom la gars yi dellu si waat euh, Kédougou geek Amadou Ba gis nañu tamit Déthié Fall mi xam le ne lamu mu yaakaaroon ngir góob ko ci parrainage am na ko. te pare na ngir waaye nit ñi son ko moom ajuma nga xamante dina xamal ëllëgam dañ ko dañ ko delluwaat. Ah, delluwaat nañ ko Cap Manuel ni ki euh, démb xaw ma barke démb. Ah, euh, foofee tamit ay avocat am ne euh, jëlee ko ca principal ga mu ne woon delluwaat ko foofee ci lu ñu yëgut. waaw mais ñoom aussi loolu la ñuy def waaw. c' est pas forcément dañ leen ko war a yëgal bon je ne sais pas. parce que loolu maîtriser ko. Mm-hmm. mais ce qui est certain bu fekkente ne Ousmane Sonko delluwaat nañ ko Cap Manuel. Mm-hmm. Euh, lu ñu lu ñu lu ñu mën na jàpp ne càkkuteef Ousmane Sonko la. parce que boo fàttali ko niki fan yi génn Ousmane Sonko si boppam moo sàkk woon dafa bëgg a delluwaat euh, a delluwaat kaso. maanaam Sébikotane ko waaw. boo xoolee boo xool moo gën a tar. parce que Cap Manuel boo xoolee kalo kaso la waaye du kaso. Cap Manuel. ñi ko xam nee nañu kaso la nii waaye du kaso. parce que kaso boo xam ne nii kaso kaso kaso noflaay la. ni ko ni ko mën a ni ko mën a waxee. mais de toute façon ak bu fekkente ne moom delluwaat na kaso delluwaat na kaso transfert nañ ko yóbbu ko jëlee ko pavillon spécial yóbbu ko fa li nga xam moom moo di ca euh, kaso ba mm-hmm. nekkul loo xam ne nii coobare état la ci li ñu wax mm-hmm. mais médecin légistam si bopp moom moo ko sàkku moom moo ko sàkku parce que ñoom def nañu ab communiqué indi ay leeral wax ne mm-hmm.

coûté état bu Sénégal fële ci pavillon spécial cent cinquante mille francs CFA. Mhm, mhm, mhm. maanaam paj geeg lañ ko doon jox ak ñoom seen yëpp. chaque jour dana am facture cent cinquante mille francs boo xam ne état bi dina ko génne ci contribuable sénégalais yi fay ko. te Ousmane Sonko lu mu néew na def na pavillon spécial lu toll ci ñett jàpp ñeenti weer. cent dix jours. kon cent dix jours tey jii bu fekkente ne yaa ngi dem ba di ko calculer ay quinze millions de francs CFA la. waaw waaw ci léegi quinze millions de francs CFA yooyu nga xam ni Ousmane Sonko def nañ ko ci moom. bon question <laughs> dañ ko war a poser mun nañ ko gëm nag xam tax mën nañ ko gëm parce que jusqu'à présent gisuñu wala dégguñu waa parti Pastef démentir information ah, boobu beneen information boo xam ne gaa waaye xam nañ ko hmm. te jusqu'à présent démentir ñu ko ñu bari dañ ne Ousmane Sonko day sóob rek waaye xiifalul waaw waaw loolu lay juróon na day xiif xiiflu rek waaye xiiflu day feebar feebar waaye feebarul xam lu tax moo lu tax gaa lu tax ñu wax ko waxoon na ko ci gàmm parce que bu fekkente ne ab kilifa diine dafa yëkk écart du wax. Mhm. ne Ousmane Sonko day xiif xiiful waaye xiifulul parce que. Mhm. am na ñoo xam day ñëw di ko recevoir mu lay ñu koy seet ci a comment mhm. ñu mën koo gëm xamutax ñu mën koo gëm parce que ba mu ko waxee ba léegi dégguñu benn personnalité boo xam ne génn nga ci biir parti Pastef bu génn weddi li sëñ Moustapha wax waaw te wolof yi de tubaab yi dañ ne kii la diiroon constant. Ah, ba ba ci waa yeewi kon mën nañu gëm ne ne kon mën nañu gëm ne ne effectivement Ousmane Sonko feebarul dara jotu ko da doon tappale. <laughs> léegi nag mënoo nekk rek di tappale ba noppi nag di coûter contrat bu Sénégal yi chaque jour cent cinquante mille francs te place nag prisonnier kaso la. <laughs> waaw la le fait que vraiment ñu jëlee ko fële yóbbu ko yóbbu ko Cap Manuel même bu ko sàkkuwul sax mooy li jaadu. <laughs> oui mooy li jaadu. Mhm. comme lañ fa ah mooy li jaadu ah jarul sax nekk fii di layam layam yi leneen li des mooy dañu war a ko wax Ablaye. Mhm. mooy kaso bi nga xam te dañ ko jël daal di koy yolomal def ko lu ñàkk fayda. waaw waaw waaw. jël ay góor yàlla di leen tëj ci kaso bi man loolu moom ma metti. sànq Walf Quotidien fu mu taxaw tey baax. xam nga ba ma xëyee. Mhm. gis ñu bind ne Pape Sané am na nu muy demee tey ji daañu ko defeere parquet daañu ko defeere rëbës. Mhm. dama tikkewu dama am lu ma ne ci ci te man en général presse bi lépp lu ñu bind rek dama koy gis. Mhm, en général presse bi lépp lu ñu bind rek dafay am. am na am na source bu kon bu fekkente ne am na ay journalistes yu génn wax ne ne Pape Sané tey ji lañ koy defeere kon mën nañu njort ne Pape Sané tey ji lañ koy defeere mhm. mais Pape Sané lan la def boo tax ñu war koo déféré. ñu war koo déféré. mais la wax lu aay tax ñu war a déféré Pape Sané man c'est ça ce qui me pose. ba tey askan wi am euh, nga xam ne Pape Sané posté na ko depuis deux mille vingt mm-hmm. ko. Mm-hmm. noonu kon tey jii bu fekkente ne wëlbatiku nañu de Pape Sané mi dañ ko war a yóbbu dañ ko war a déféré mais bëgg naa ñu wax ñu ñun Pape Sané lan la def. li war tax ñu war koy déféré fan la ñu sukkandiku waay. am mm-hmm. lay dañ wax ne dëgg aussi. Ah, mais kay aussi bu ñuy jël nit ñi di leen foowee quoi. kaso bu ñuy jël di ko dugal ci nit ñi dañu foog ñu xool ko yenn saay toroxal lay doon te. parce que aussi. ñu tëj la ci saa si génneewaat kaso dafa ne kas gis boo kaso. Mm-hmm. bokkut nga dem marché. Mm-hmm. kaso boo ko ak nga feebar. dem dem dem clinique ba nga faj ji mm-hmm. mais kaso dafa doon loo xam ne leneen la. te nag li ci doy waar kon boo demee ba di ci dugal ni da ko war a xoolaat. li ci doy waar Seydina boo génnee kaso dañ lay ubbil beneen kaso gu amul caabi. te loolu dafa dafa yéeme. xam nga gis nga kaso si boppam sax. Mm-hmm. a dugal nit. Ah, waaw bu fekkee ne yow nit nga. Mm-hmm. kaso yi si war a dugg xam nañ leen. correction bi mun naa demee parce que bu ñu waxante dëgg président Macky bu mu fi nekk 2012 ba tey ñaata sàcckat lañ fi jàpp roxo ci poste. Mm-hmm. te du ay sàcckatu ginaar mais ay sàcckatu milliards. <laughs> c'est parce que dañoo ànd ak président Macky moo tax tey ji dara inquiété wu leen mais sàcckatu milliards yooyu de est-ce que def nañ li war a tax ñoom ñu war a bàyyi leen ci mbedd bi di jël Pape Sané di ko dugal ci kaso bi. Mm-hmm. oui ba léegi dossier yooyu. mais Pape Sané deful li war a tax ñu dugal ko dugal ko kaso la mën a posé léegi nag man problème mooy que moo tax état bu Sénégal singali groupe Walfadjri quoi. waaw yéeme na de yéeme na lool. mais c'est la première fois. Mm-hmm. ab groupe de presse mais nga singali leen comme ça. weer wu jot ñu am kum ci woo. mais chaque mois nga jàpp benn journaliste dugal ci kaso bi mais daañu dem ba finalement wala fajiri képp ku fi nekk journaliste daañu di dugal ci kaso bi. Eh, yéeme na yéeme na loolu waay. Pape Ndiaye tëj nañu ko ñaari yoon kaso. Coro mm-hmm, mm-hmm. Mandela. Mm-hmm, Cheikh Bara Ndiaye. waay tey jii Pape Sané la. ba ëllëgee mën na doon Ablaye wala mu doon Seydina Omar. lu ne mun na ci xew. mais si bi lan la mais wal fajiri dañ seen liggéey la ñuy def nit ku nekk nag da nga koy nangu ak moo tax ñu singali groupe bu ñuy posé. mais l'essentiel na xam ne ne waaw groupe Walfadjri mu ngi ci ginnaawam. ñu ngi ci ginnaawam jërëjëf Seydina. ñun ay Pape Sané lañu. Mhm. parce que bu fekkonte ne leneen la. Mhm. boobaa Seydina du ci wax. Mhm. waaw parce que man am naa fulla gu doy ni. ab journaliste bu fi def say tooxe doona. waaw waaw. <laughs> bañ teel a tëj ci kaso bi. munoo muusa ko waane ba mu wax si. mais lii ñu tëj Pape Sané tey jii.

bu nees ki incha allah dinaa wéyandil euh, googule émission douceur matinale ci Walf FM euh, ñu yendoog jàmm